حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والشهور معا مثل العزيب وجه والقدوات كانوا عبادا بتاعات لربهم وكان جل لهم ربا بمناته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 أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني عليم sadaqallaahu al-aziim. sadaqallaahu al-aziim jërëjëf ci ayaat quraaniya yi nga ubbee jataay bi ñaan suñu borom rek mu def la mag la magum lislaam te barkeel alquran ji te bari say kem euh, kon mbokk yi niñ ko waxee woon sànq ci jataay bi nga xam ne kuréel gi ñuy wax ahlul xidmati kuréel gu lëkkale ndeyu daara yi ak baayu daara yi ñoo ko woote ñu koy faral di am par ñetti weer yu nekk di ci feeñal seenub liggéey bi nga xam ne lenn ci seenub liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci wetu daara yi te mooy seen addiye yi nga xam ne dañ koy dajale kenn ku nekk ñetti weer yu ne nga barkeeloo ab 1000 francs muy ñaar téeméeri dërëm ñu dajale ko indi ko ngir jëme ko ci yittey daara ji Euh, muy benn ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal téere bi incha allah danañ ci ñëw ci kanam kon dañuy jox kàddu gi rek balay gën a guddi balaa booba ñu xam ne euh, suñu bokk soxna yi yore wàllu kees gi ne ci taabal ja ñu ngi wax ne bépp soxna bu agsi nekk jëwriñ te yore li nga xam ne moom nga war a wersi nga ñëw ci taabal yi foofu nañ koy joxe ci taabali soxna yi su ko defee ñoom bu ñu liggéeyee ba noppi danañ ko bind dajale ko door a ñëw fii nag rappel ko incha allahu taala ku defee kon am na ay bokki soxna yoo xam ne euh, yàlla def na ñu am ngànt ba jot ñoo teew waaye teewut teewal nañ seenu liggéey jaarale ko ci euh, jumtukaay yi ñuy jaarale wàllu xaalis wéef ak wi demee na moom incha allah ñooñu itam daañu leen euh, présenté kon ñu jox kàddu gi. kon suñu borom nee na woon ndéem da ngeen di daje bu leen daje ci daje bu amul daje bu amul njariñ nag mooy daje boo xam ni jëmut ci yàlla jëmut ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëmut sëñ Tuubaa jëmut ci alxuraan loolu mooy daje bu amul njariñ te loole ca njàngaleem sëriñ bi it sëñ Tuubaa doon nañu ko mooy tuloo wajtani boo majaalis saqaawa kon bu yàlla dogalee ñuy daje ngir jëmmi yàlla di daje ngir jëmmi yonente bi di daje ngir alxuraan karim kon daje bii daje bu am solo la kon ñëpp xam ni jéego ñëw yéeg dem yi ak jataay bi lépp aw yiw rek lay doon li ci dool mooy li nga xam ni moo tax ñuy daje muy alxuraan it war naa tax ñu daje muy alxuraan karim ndax alxuraan day téere boo xam ni suñu borom subhaanahu wa taala bi mu ko wàccee ci yonante bi sallallahu alayhi wa képp koo xam ni ab yonante nga wala képp koo xam ni ab jullit nga moo xam bu góor wala bu jigéen danga am responsabilité ci téere bi loolu la borom bi subhaanahu wa taala di wax ni wa innahu la zikrun lakka wala xawmika ko safatu salun responsabilité boobu yi nag ginnaaw yàlla moo waral daje gii ñu koy amal moo waral it ñuy jël sunu alal di ko ci def kon loolu ci responsabilité alquraanu karim la bokk bi ñu doole ko mooy li ñu dajale it muy néew ak a bari muy ñaar téeméer par trois mois yu jot ci soxna su nekk waaye 2000 francs muy ñeenti téeméer par trois mois yu jot ci góor yàlla bu jot bu nekk muy daara bu nekk wala sëñ daara bu nekk loolu yi mu koy li muy nuru nuru lu xeebu lu am solo la ndax buñ ko dajalee rek ab lim lay doon te maanaam te jëmmal lu am solo lu jëm ci daara doo xam daara mun ko ñàkk te ku ne xam na ni loolee ñuy dajale it euh, suñ borom dana nu laaj nu duggee suñu loxo dana nu laaj it nan la génnee suñu loxo muy loolee yi nga xam ñu ngi koy dajale ndax suñ borom mi wax ci alquran yi su ma la tus àlluna yow mi isin ani nahim kon borom bi subhanahu wa taala mi wax ni lépp loo xam ni jaar na seeni loxo ci ay xéewal danaa leen laaj loole nam ca waaye lépp loo xam ne génn na seeni loxo it yàlla nee na dana lu laaj loole nan la génn sunu loxo kon nag ëllëg aw lay la woo xam ni lay wu jub la mooy lépp lu nekkoon sama loxo rek jël naa ko def ko ci alxuraanu këriñ tey jëf ji lu mu tuut tuut buñ ko xeebee it borom bi subhaanahu wa taala mi tax ñu koy def ak alxuraan mi tax ñu koy def a jëmmi sëñ Tuubaa ji tax ñu koy def ku ne xam na ni yàlla moom du xeebal jaam jëfam jaam bi nag mën na koo xeeb ngir tuuti na waaye yàlla du xeebal jaam jëfam ndax faman fa man yaxmal misqaala sarratin xayran yara loola borom subhaana wa taala wax kon nit ki bu jëfee aw yiw lu mu tuut yàlla du ko xeeb tey benn dërëm ku ko jël dépassé ko ci yoon yàlla sun borom dana la bindal aw yiw ca dërëm boobee nga jël def ko ci yoon yàlla ba noppi yàlla da lay fulal dërëm boobee delloowaat la ko wa ma anfaqtu min zayin fa huwa yuxlifuhu xayru rasxina kon loolu war naa tax kenn ku nekk de farlu ci li la yàlla dénk néew ak a bari nga fexe ba dépassé ko ci yoon yàlla te borom bi subhaanahu wa taala yi nee na ku jël benn dërëm def ko ci yoon yàlla ngi mel ni ki jël wenn fepp dugub ji ko ci suuf si sun borom neen bu koy saxal da koy def juróom-ñaari gattax gattax bu nekk mu def ci aw gub gubu nekk juróom-ñaari euh, juróom gub bu nekk mu def ci téeméeri pepp loolu yow wenn fepp dugub nga ji woon waaye juróom-ñaar téeméeri pepp la la jural wala mu jural jural la sax ay toni pep yoo xam ne ton yu dul jeex la mooy masalu lazina yunfiqoona amwaalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sabaha sanabila fii kulli sunbul miatu habba wa daaxu yu daaxi fi liman yasha wala waasin alim kon loolu war tax kenn ku nekk di jël alalam di ko def ci yoon yalla te jëm yàlla rek tax li doon mooy nit ki lu am ci àdduna lu mu bari bari buy dellu ca borom subhanahu wa taala mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di dellu fan jóge woon kenn ku yóbbaale dara ci lim amoon du am ndax moo tax ñu naan barsàq nangu na yóbbante waaye nanguwut yóbbaale la ñu yóbbante barsàq nag mooy lii nga xam ne ñu ngi koy jël ci li ñu yàlla jox te di ko dépassé waat ci di ko dépassé waat ci daara di ko dépassé waat ci ñooñ daara loola rek mooy la ñuy yóbbante barsàq te ëllëg bu ñuy demit loola képp lan fay fekk moo tax ñu naan barsàq nangu na yóbbante waaye nanguwut yóbbaale lu waay bari la bari loo ci deftoon ci yoon yàlla it ëllëg doo ko mën a kii ñi nga xam ne ñoo nekk barsàq it wala ñoom bi ñu waaj a dem barsàq dañ ni siiwalin amoon ci alal lépp ñu jël koo def ko coon yàlla wa anfiqoo mimmaa razaqnaakum min qabli an yaati ahadakum mawtu fa yaqoola rabbi lawlaa axartani ila ajalin xaribin fa asaddaqa wa kun min asalihin walaw yuaxira allahu nafsan iza ja ajuluha wallahu xabirun bi ma taxmaloon mooy ñi nga xam ne dañ doon niig niigal nanguwunu woon a jël benn dërëm def ko ci lu baax mu demee ba toll ci waxtu sukkuraat dan naan siiwalin amoon ci lu alal lépp ñu retiré seen compte banque yëlëb seen i poos ubbi seen i poosat fekk seen i pas-pas yi kumba lépp ñu def ko ci woon yàlla ngir ñu mën a bokk ca ñu baax ña ngir ñu mën a doon nit ñu baax ngir mu doon ab sarax ci ñoom ngir ñu mën a tabbi àjjana te loola suñu borom subhanahu wa taala dañu wax ni loolu mën a tuta nekk kon nag ki nit kee gugut foofu it war naa farlu ci li nga xam ne yàlla man loo nag ko mu góorgóorlu ci lu baax rek def ko rawatee na nag alxuraan ak ñooñu alxuraan xam ne lu ci waay def rek sa bopp nga ko defal kon loolu ñu ngi ci soññi suñu bopp waaye di soññi waat ndeyi daara yi di soññi waay bàyyi bàyyi daara yi ñu gën a téyewaat li xam ne liggéey bu wér la liggéey bu leer la waaye liggéey bu jub la li ne laaj lu yomb la waaye lu lu lu tonawu la waaye fi ñu koy dugal fu leer la waaye fu ñëpp xam la kon ñi ñaan su borom dafa nu dégg ak topp kon tey euh, dañuy jël kenn ci soxna yi yonent yu baax yi muy soxna si yonent yàlla Ayuba yonent yàlla Ayuba di ku bari woon ay natt waaye yàlla boole ko itam jigéen ju baax ni ngeen ko déggee te déggal ko seen bopp yàlla da ko defaloon xéewal dafa njëlbeenoo xéewal ndax wax nañ ne am na juróom-ñaar fukki at moom yonent yàlla soxi bu yoo xam ne ay doom ak alal ak jur ak barkeeg mbooloo yàlla defal na ko si loo xam ne bariwut ku mu ko defal kon mayoon na ko lam sa bëgg lépp loolu doon na ko am ba yàlla ñëwee kum na toomit wax nañ ne ci diir bu yàggadi rek la tàggoog loolu lépp ndax yàlla koo njëkk a dañu dafa taw taw bu metti boo xam ne mboolem lu mu am ci ak jur moo xam ay nag la wala gëléem walla xar keroog la tàggoog moom yépp daal di dee ci euh, taw boobu nes tuuti yàlla rof ko tawat ci ay soxnaam soxna itam jël seen wàll di faatu ba kenn rek des sa doom yi jël ñoomit faatu ba daanaka ñëpp jeex ba ñépp jeex waaye soxna yooyu nag daa amoon kenn rek ku ci des moo waral tey ñu fàttalante loolu kenn ci soxna yooyu yu fa des nag moo nekkoon ak yonent yàlla Suhayb bi mu demee ba nga xam ne yàgg na it suñu borom teg ko moom ci boppam tawat ju metti joo xam ne mujj na sax mënut a nekkateeg nit ñi ba waa dëkk ba dañ koo génnee defal ko benn xayma rek ci bitti waaye teewul soxna si nekk moom soxna si bi mu demee ba nga xam ne amatum lu lenn lu ñuy jëfandikoo day def saa bu xëyee day ñëw ci dëkk bi ku bëgg fóot mu fóotal la ku nga fay ko ku bëgg a liggéeyu liggéeyu jigéen mu defal la ko nga fay ko waaye ba mu demee ba mu yàgg it yàlla nattoo ko waa dëkk ba si boppam wóolootuñ ko ne kii gannaaw si ku feebar lay jógee man naa toxal feebar bi indi ko si ñun nga xam ne nangootuñ mu liggéeyal kenn nga xam ne dana toog xëy di wër ba ñibbeem jot rek mu ñibb loola nag ba mu xeggee ci mbir moomu ak mettiwaay boobu fa ko sunu borom sa la sunu borom wax yoo nag maanaam def ci xelum yonent yàlla ayub mu daal di wax ne sunu borom am na lor joo teg joo xam ne lor ji mi ngi may gaañ xat masani ya dur wa anta arhamur rahimin te yow yaay aji yërëme ji sa ko sunu borom ne daal di koy teggil lépp luy lor ja ni mu ko teggila it daf ko wax ne ko kon urkud urkud bi rijlika haza muxtasalum baaridum wa sharab daf ko ne demal ba fële rek nga këdda soo këddaa ndox mu sedd guy a génn moo tax sax ñiy jàngale xam-xamu faj di wax ne sangoo ndox mu sedd moo gën sangoo ndox mu tàng ndax daf ko ne baarit muxtasal baarit wa sharaab nee na ko nga sangu si te naan si ba mu sangoo sa naan sa la tàggoog lépp luy tawat du ko dal wa aataynaahu ahlahu jooju it la la alquran wax mooy lépp loo xam ne ak njabootam la goo xam ne amoon na ko te ñàkkoon ko yàlla da ko delloowaat gépp jur goo xamee ne ñàkkoon na ko it yàlla da koo joxaat kon meññaat na amaat na ak njaboot gu yaatoo yaatu laata mu fi bàyyi ko waaye bariwaat na barke bariwaat na ay ay jëf loola yonent yàlla ayub kon yonent yàlla ayuba moomu nga gis kon loolu bi mu koy def dafa ànd ak jenn jigéen ju jàmbaare joo xam ne moo nekkoon ci ginnaawam doon ko jàppale ca liggéey ba moo tax muy koo xam ne jigéen ñu baree baree bari xamuñu si moom lu bari waaye jàmbaara ndax koo xam ne si <clears throat> biir nattu bi am na bis mu ne ko waaw Ayuba si lii rek lañuy bëgg a sax ba kañ ba kañ mu ne ko waaw yow ñaata at la ma nattu bi dal ak bi ngay tawat nii ñaata la toll mu ne ko juróom-ñaari at juróom-ñaari at yaa ngi ci lii ndax wax nañ ne nattu bi am na ñu ne fukki at ak juróom-ñaar mat na ko am na ñu ne itam juróom-ñaari at la waaye juróom-ñaari at moom téere yu baree bari wax nañ ne ëpp na ko sax bi ko nee yow soxna si laaj ko ne ko waaw yontu yàlla ayuba ñun dañuy nekk si nattu bii rek ba kañ ba kañ bëgg a tàmbalee jaaxle bëgg a tàmbalee caalit mu ne ko waa yow xéewal yi nekkee woon ñaata at la mu ne ko juróom-ñaar fukki at mu ne ko nag kon foogoon naa ne bala ngaa mën a jàmbat dañuy dundagun lu toll noona bu ñu demoon ba am daal juróom-ñaar fukki at ci nattu yi boobaa moom lu sa tegewaat soo jàmbatee ma nangul ne la kon war ngaa jàmbat ba ko waxee loolu soxna si daal di am kersa daal di rus daal di delluwaat ci toppatoo soin nga xam ne nekk ku tawat kenn ku si nekk si yéen xam ne ne yor ku tawat ñaari fan dong dong jàmbaar a koy def rawatina nag nga nar yor nit koo xam ne lu muy def yaa koy defal moom waxatoo mu lay jëriñ waaye yow coono bi mu lay yóbbee rek ak tënk gi mu lay tënk egg ba ñu génnee la ca ab àll ba yaa moom nga nangu faa nekk kooku xam ngeen ne bu ñuy lim jàmbaar bu ñuy lim jigéen ju baax jigéen ju baax a loolu nag bu ko alxuraan dee nettaliwaat daa bëgg yéen ñii bu ngeen ñëwee kenn ku si nekk xam ne kala yàlla booleel cib sëriñ am na lu la war ci muñal ko ci boor bu nekk ndax sëriñ su nekk ak la ko yàlla na nattoo mën ngaa gis koo xam ne sëriñam li ko si yàlla nattoo mooy bëgg na ko lool waaye amul doole di ko di ko defal lam ko war a def kon ne dina muñ loola nga gis koo xam ne sëriñ bi am na doole lool sax waaye da ko tàng bindi aw tàngoor dafa naqari deret lool àgg ci lool waaye itam kon na ko muñal loolu mën ngaa gisit koo xam ne yàlla daa def ka ko yàlla booleel ci sëriñam daa tawat wéradi kon te ku tawat ku ne danga nga naqari deret kon kooku itam yàlla nga koy jàngal ne ko am na koo xam ne ci jigéen àndoon naag benn waay boo xam ne mu muñal na ko lu ëpp juróom-ñaari at yoo xam ne kooku daal tëdd jàpp naa ne yooyu misaal buñ ko dee indiwaat ci alquran waxuñu ko nii rek sudu fatan mu jàll dañoo bëgg mooy ibra lu ulil albaab dañoo bëgg borom xel yi si boppam bu ñu naas loo loolu xam ne situation bu ñu mën di dund ak seeni borom kër jigéen jaaroon na fa dundoon ko kon nag yéen ñi nga xam ne yéenay ahlul xidma daa bokk ci seen xidma ngeen fexe dund alquran fexe xam ay maanaam fexe xam ay maqasidam fexe xam ay ahdaafam mooy li alquran li ko tax a wàcc te mooy defar nit ngeen xam ko te te saa bokk xissa yi nga xam ne alquran da koy nettali ngir bëgg nit ñi mën saa jaar mën a roy kon jigéen a ngoog joo xam ne teg leen ko seen kanam yéen waa axlul xidma gépp su ngeen demee ngeen ne ka doon waxtaan nee na am na jenn jigéen joo xam ne ab yonent la ko yàlla boole loon yonent ba tëdd na lu mat juróom-ñaari at am na ñu ne fukki at ak juróom-ñaar waaye moo ko doon defal lépp te musta caalit musta daw bàyyi ko musta jàmbat te ba mu demee ba naag ba mu demee sax ba xelam seytaane di sa bëgg a dugg ba ko borom kër ga soññaatee daa góorgóorluwaat kon loolu leçon la boo xam ne mën nañ koo bokk ci yi ñuy fàttalante su ko defee sëñ Abdou Lahad comme wax jant bi dafa xaw a gàtt da di xool waxtu li si des su fekkee ñi yore wàllu ndax li ëpp si liggéey bi moom mooy ñële jigéen ñële di def versement yi ñoo ci solo su amul su dul lool nag ku mel ne borom xam-xam yi fi nekk ñu def ay taaliqaat rek ci euh, leçon boobu ñu jël tey muy bind boo xam ne ñu sàqami ko te ba bu ëllëgee ñu mën koo jël li nga xam ni nag mooy ahlu xidma moom liggéeyal yàlla la ak yonent bi ak sëriñ Tuuba bokk ci ahlu xidma nag dëgg la doy na naam waaye fexe ba dugal ci ay nit itam lu am solo la ndax bii may ñëw am na ñaari bàyyi daaru yu ma ci dugal yoo xam ne kenn ku nekk ñaari junni la ma jox muy ñeenti junni may ndaale ko mu ngi nii ci taabal ji te ñooñu euh, dama leen a wax rek ni liggéey bi demee ak pas-pasub liggéey bi ak pëstéef bi maanaam ñu yëkkati ko jox ma kon nag jeeg ña ca walla ndoowo ñoo daanu ca teen ba machine ñi ca pind ba kon nun ñi nga xam ni ay bàyyi daara lañu di sëriñi daara nanu góor góor lu nag ci versement yi ndax jigéen ñi kat jàmbaar lañu te jigéen ñi ñun lañu war a roy ndax amul fenn fu suñ borom jiitale jigéen teg ca góor de jiital góor teg ca jigéen kon nag nit ku koy jiitu danga koy jiitoo dara kon nan góor-góor lu nun bay daar yi ak sëriñ daar yi ba bu versement yi ñëwatee maanaam jigéen ñi duñu nu man ndax jigéen ñi man nu kat du ndam ci nun kon nanuy góorlu ci versement yi nun bàyyi daara yi yëf yi nag dafa xaw a guddi moo tax dañ koy tënk rek ci soññee soññee bi may soññee nag maanaam saa bopp laa ci jiital ndax sëñ bay jaxate dafa wax ne ku bëgg am lu rafet day muñ te def lu rafet xamal ne kat sax la gàncax goo jiwul jafe na ab dof du jéggalee day dóoree kaleb la lu bon tey seenu pay gu rafet kii kat ku def tigi la nan góorgóorlu jërë ngeen jëf. di rafetlu bu baax bis bi waaye di di kontaan di sant yàlla ci ñun biñ ko fekkee ndax damay wax ne yéen li ngeen nekk dafa bari ñoo xam ne xam nañ ko waaye ñun ñi ngeen koy defal sax dañ koo umpule ndax jataay bu mel nii sëñ daara yi ñoo fi waroon ëpp sëñ daara yi war nañ leen a gërëm war nañ leen a ñaanal war nañ leen a yaatal ndax li ngeen di def mooy li gën a jafe ci daara muy wàllu cet wàllu dund ñaar yooyu su ko sëriñ bi amul am njàngaleem mën naa sooxee te yéen ñi nga xam ni yéen a ngi taxawal loolu te yàlla rek tax li sëñ Abdou wax doy na nit booy def dara te yàlla tax doo doo geestu boo geestoo rek am lu la fakkastal te ñun gis nañ loolu ndax pas-pas yiñ fi gis ak taxawaay yi ba mu yëg si fii yéen ku ngeen yéemul rek daa xamul ndax li ngeen di daj ba def ko du tëddi nelaw du toog di wax waxi kese kon yàlla na leen yàlla fay alxuraan mi tax ngeen di sonn tam yàlla na yàlla dëppale leen ak njariñal alxuraan euh, li may wax nag sëñ Ablaat wax na ko ba noppi ndax man damaa yàgg wax ne Cheikh Ablaat Jaxate mii ak Baay Abdou lépp lu ma leen gis ñuy def man buñ ma woo ma ñëw te bu ma ko yégee te woowuñu ma tam damay ñëw ndax samay dëkkandoo lañ ay kilifa lañ jàpp ma ni dinañ dox loo xam ni amalul askan wi njariñ lépp loo gis doomu dama taxawal ko nag balaa muy sotti da koy jéem gëm ni daa war a am mooy tax mu àgg fa mu jëm yooyu Cheikh Abdoulaye di junj yépp ay xalaat rek yu ñëw la comme ni ngeen tollu fii xalaat yooyu ñu tàmbali ko suñ boroom teg ci loxo ba mu àgg lépp lu nit tàmbali mu baax seytaane génn ca loxoom ñi ca war a bokk faw danañ ci bokk tàmbali bi mën naa metti waaye mujj gi day yomb bu ko defee kon ñu ngi feddali suñ kóllëre ak yéen di leen gërëm comme ni ko Cheikh Abdoulaye waxee di gën a engagé wu ci ànd ak yéen liggéey boobu liggéey bi nag dafa yaatu yéen yéen a yore wàllu set yéen a yore wàllu ñam yaatal nañ leen ci daara yi lu ngeen fi am ci lu leen naqari da ngeen koy wax ñu saafara ko ndax kenn ku nekk daara jam nekk dafa war a am wàccuwaay loolu day tax ki lay liggéeyal xelam day dal ndax bu ngeen dul am accès ci daara yi la fa nekk ci sikk sax du ngeen ko xam ba mën koo saafara te ñun ngeen koy defal loolu Cheikh Abdoulaye ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ñoom nañ am accès ci biir daara yi sañ faa dem sañ a wax ndax ba ci ñiy jàngale seeni way jur ngeen yoo xam ne war ngeen caa gis loo xam ne mën naa jur lu yàq daara ngeen wax ko wala koo xam ne tawat na ñu sàggane ko ngeen wax ko te loolu mooy seen rôle yéen ci daara yàlla na yàlla kàttanal leen beneen bi si yokk mooy investissement yi ci kanam jërul ragal tàmbali rek la li ci des suñ borom moo koy àggale euh, fas nañ yéene am ay fóotukaay yoo xam ne danañ leen jàppale ca loola Euh, damay faral di wax Cheikh Abdou nag ne ko euh, machine fexe woon ba am barab bi mu dem ndax barab bi day laaj ñu xëcc courant day laaj ñu aménager ko bind ci turu euh, ndeyi daara yi nga xam ne moom ngeen tudd muy ahlul xidma ba ñépp xam ni fii la nga xam ni bis boo ko doon inaugurer tey image bi day génn loolu mënta ñàkk ngeen door caa am ndax su ngeen amee machine yi te amu leen barab yooyu tam day doon matériel boo xam ne valeur bi du feeñ moo tax euh, kenn ku nekk ci ñun war nay wut wut barab boo xam ne barab bu mën a installé ay machines yu bari la yoo xam ne ak fu mën di nekk na doon foo xam ne ku ko romb da nga ko gis su boobaa ñu déclaré ko kilifa yi ñu xool ko buñ demee wax ak moom bu dee luñ nu abal wala luñ nu luyee dañuy war a dox jëm ci ab courant ndax courant bu mag moo koy doxal su loolu amee nag la ca topp lépp dana yomb ndax comme ni ko Cheikh Abdoulaye waxee gëstu nañ ko ba xam foo xam ne buñ ñëwoon bëreet foofa la ñuy dem wuti ko te su boobaa dina dëppoo ak yéen yi ngeen bëgg war ngeen koo waajal tam ndax deesu ko samp rek tëj ko dem day am ay nit ñu ñuy waajal ñu nekk fa barab booba barabu liggéeyukaay lay doon boo xam ne ña fa nekk di liggéey ñoo leen di fóotalal ndonga yi waaye da ngeen a am lu ngeen lu leen war ca ñooña kon liggéey bi war na yaatu ba nga xam ne ñooña dañ leen di fay courant ba ñu di ko fay liggéey ba ñu teg ko ci yoon ba pare ndongo yi di ci jariñu mu des beneen liggéey départ bi nan ngeen koy organiser ba daara ju nekk man caa bénéficier wu nga xam ne benn daara du ni dañ koo def bàyyi ma wala benn ndeyu daara du ni man sama daara bokku ci loolu nag ab comité lay doon boo xam ne comité bu serein lay doon boo xam ne ñooñe ñooy liggéey ci loolu balaa ñoo yëgsi ca programme booba ndax buñ ca liggéeyul bu yëgsee suñ kaw rek duñ ko mën a appliquer comme ni nga xam ne noonu la noon la waree kon sëñ Abdou ñun ñi ngi lay gërëm ci wàllu set gi sant nañ ci wàllu wér gi yaram gi dox nañ si ay jéego yow defe naa lu bari xam nga ko ci bi ci mujj rek man maa ngi jàmbat kilifay hôpital yi ñuy bàyyi xel sëñ daara yi ndax kuy jàngal nit di sàkku mu wér yow mi koy jàngal da ngaa war a wér mooy tax nga mën koo jàngal donc dox nañ ci jéego yoo xam ne yàlla bu mu am wala yàlla bu gaaw waaye sëñ daara bu fi jàmbat dara tam dinañ def pexe ba sa taxawaay ñu taxawu ko lépp lu ci war hôpital mën na la koo defal te du ànd ak coona loolu ay bunt la yoo xam ni ñi ngi koy ubbi ci hôpitaux yi nga xam ni ñi ngi Tuubaa te yàlla mën nañ cee defal ndam kon ñu di leen jaajëfal baax di wàcc foofu suñ kàddu ci sëñ Tuubaa ci alxuraanam ji benn te gënu koo ñëw ndax sëriñ Tuubaa kat mënoon na fee bàyyi ay étage mënoon na fee bàyyi ay oto mënoon na fee bàyyi alal ju bari joo xam ni daanaka li ji jiite réew mi yor mënoon na ko waaye bàyyiwu fi dara ba muy dem lu mu nu dénk dongaam yi alxuraanam ji dëkkam bi kon nun jigéen ñi dañ cee am ab dogal boo xamante ni dafa tegu ci sunu kaw ndax naka jekk ba àdduna yi baax fu góor taxaw jigéen dafa war a taxaw di ko jàppale dem na ba ca ku baax ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy def xare badar ba jigéen mënut a xeex waaye dañ daan gàddu ci dañ daan yenu ndox topp ci ñoom ku daanuñu may la ndox kon ba tey loolu loolee rek moo nu war ñu takkaay jàppale alxuraan jàppale sëriñ daara yi jàppale sunu bopp jàppale sunuy doom ndax ñun defe naa lépp ci suñu kaw la daanu sëriñ daara yi ñun ñoo di seeni soxna yi leen war a gunge dongo yi ñun ñoo di seeni ndey yi nga xam ne noo leen war a taxaw ba duñu tilim duñu xiif duñu mar duñu ñu joxam kon loolu sëñ Tuubaa dañ koo dénk ndax jigéen ay toog góor ay joxe njël waaye bu nee sama dongo yi nañ ci jàpp ba bu ñu tilim bu ñu xiif bu ñu joxam kon ñun am nañu ca ndax póot jigéen la joxe lekk togg jigéenu góor gi mën naa yor këram di joxe njëlam di joxe depaasam waaye jigéen ja mooy yaatal ba ku ca xaj mu boole ko ca kon nan ci boole suñu doom yi nga xam ne dañoo ne ci donga yi di ci daara yi di jàpp at di jàng alxuraan te bés bu yàlla sàkk ngeen dégg ñoo xamante ni ñu ngi leen di xeex di leen wax wax joo xamante ni wax ju demewul ju naccoori ko la ju demewul noona te ñooñee seeni donga ña nga leen aj ca kaw bu ñuy dem ñu sang leen ba ñu set jox leen ñu lekk jox leen gute gi ñuy yor ba nga xam ne bu ñu génnee loolee lañuy jëfandikoo te la ñuy wax ca sunu dongo yi xooluñu ko ca seen dongo yooyee dañu leen a xoole rek lu ñaaw waaye loolee ñuy xool nun lañu ca mën a faj nan fexe ba loolee duñ ko ca gis muy ñu ñàkk xiif ndax gone bu xiifee bu demee ca daara ji dina ñaanaat ku yorug lekk mu ñaan lu waay yor mu bëgg ca waaye boo joxee donga bi mu lekk ba suur naan ba màndi nga fóotal ko yéreem ba mu set lu ca waay mën a wax itam bu ko ca gisul day day sos rek te moom loolu moom ndoxam lay la rek du saxal ba xaw sos moom fi lan ko fekkan fi lan koy bàyyi kontaret fi lan ko fekkan fi lan koy bàyyi waaye li ñuy xool nan ci jàpp ba kenn du ko gis ci ñoom di jox dongo yi ñu lekk di leen fóotal ba ñu set di leen tibbal ay bool kenn ku nekk fa nga nekk jàppal ci donga tibbal ko bool te yàlla rek tax nga di def ni mel ni yaa ngi koy tibbal say doom bañ leen a jox ay des bañ leen a jox ay mbetit ah, lii nga xam ne dañ koy laaj ñetti weer rekk la ñetti weer ñetti weer yu ne ñaar téeméer loolu matul sax daanaka weer wu nekk juróom fukki dërëm mbaa ëpp ko tey itam bés bu set nag ñu def loo xamante ni lii moom mooy suñu payug ëllëg ëllëg yomal xiyaam bu nu demee lii danu fa dañ ko fay fekk li ñuy def nag dara du ci farata duñ fa fekk dara buñ ci amul amaa ay dumaatam amuñu ci ay daane yàlla duñ fa fekk dara kenn duñ ci fay dara nag amutu pay de waa nga gis loo xam ne boo ko defee ñu fay la ba dubleel la ko ngay dem ci loo xam ne buñ la ca dumawul itam amutuk fay buñ la ca rëbbul itam amutuk pay yàlla rek a xam ndax rëbb ay rëbb mën na cee am de ndax tey jii góor gi la jox njëlam lii bëgg nga togg ko jox ci dongaam yii ak taalubeem yii ak ñi nga xam ne ñoo dox ba yem ca tey jii natt ba ñëw amoo loo ca natte ah boo moytuwut boo sàgganut lool lool lool di nga coppati ca dépasse boobee te dépasse ba sax doyut faf ndax dara doyul dara manqué wut waaye dara doyut di nga ca coppati ne xaaral lii tey jii kan naa togg ceebu ñebbe wala naa togg lii ndax aw ma natt tey dem natt ci kon danañ la ca rëbb kon rëbb mën na cee am kon nu dellee góorgóorlu jekkalaat toogaay yi te xoolaat taxawaay bi delloo sunu bopp ca yàlla te xam ni nun ñii kët bés bu yàlla sàkk nu gis loo xam ne danga naa ëndoo bis bu yàlla sàkk nu gis loo xam ne day fees dell sunu bët day buur sunu bët yi fees ko dell te nun ca man dara te ñoo ñooñee doonan ñu baax ñoo xamante ni tubaarkaal yàlla xaj na yaakaar nañu leen yaakaar koo xamante ni ñoom ñi am nañ yaakaar ci ni ah bu ñu demee fa yàlla duñ defaraat seenu toogaay kon nan doolee góorgóorlu te jàppale alxuraan jàppale daara jàppale sëñ Touba mi nga xamante ni moom moom dëkkam bii te dénkanu alxuraan ji ak daara yi ak donga yi jàppale sëriñ daara yi kenn ku ne koñ ba nga ne boo demee boo demee xañ na boo amee ñu la fa jéppi di nga am ñoo xamante ne dinañu ànd ak yow ca la nga bëgg kon bul ni man bu ma génnee dañ may jéppi déedéet yow doxal rek te yàlla tax doxalal te yàlla tax li ngay doxal te muy lu baax ki ngay romb mu di la fuuftandiku day mujj am gàcce ba yàllaa ko ba ko yàlla yi ñoo di muy ñëw dana indaale ñeneen ñoo xamante ne yàlla sunu borom mi moom moo tax ndax bu la dalee jéppi te taxul nga teggi sa tànk mu di la fuuftandiku te taxul nga teggi sa tànk bu yàggee danaa lii mbirum yàlla jàpp na ci mën naa ñëw àndeek ñii ci li nga xamante ne ndax lii mooy dëgg kon nan delloo si xel yi te doollee góorgóorlu te soññee te bu nu ci tiit dara bu nu ci ragal dara ndax li nu ne mooy dëgg ku nu ci fekk nanu ci fekk ku nu ci fekkul góor góorgóorlu rek xo xëcc bu dëggul dik bu kenn xeeb la nga yor ndax ba benn bireeb almet boo ko dammee mu yomb waaye mbooloo fukki biree boo ko boolee bëgg koo damm bala nga koo damm mu ñax kon kenn ku ne la nga yor boo ca dugalee sa tuut mu ñëw rek yàlla mën na noo dimbali ba li nu bëgg yàgg mu yàgg dañ ca musa egg baa dañ ko musa bëgg loolu nag laa aman ci lu ma leen di wax di leen soññ rek di soññ sama bopp jërë ngeen a jëf maa ngi jégalu nag. ñu fas yéene leen indil ay leeral ci liggéey bi nga xamante ne moom lañ bokkoon te doon ko wersi tey ñu leeral li nga xamante ne moom la fi ndey daara yi dajale. soxna Fajjaw foraasu baylaat joxe na 20 000 di ñeenti junni soxna Fama Dieng joxe na 15500 ñetti junni ak téeméer soxna Ayda Amar jéemul joxe na junni soxna Ndey Fall asalem joxe na ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom benn fukk soxna awalay Daaru Karim joxe na 17750 ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk soxna Binta Mbay daare Sëriñ Moodu Mbay joxe na ñetti junni soxna Faati Gaye Daaru Karim joxe na 14500 ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer soxna Busa Jóob foraasu yoonu daaru ñetti junni yu manqué ñaar téeméer na 28500 juróomi junni ak juróom-ñaar téeméer soxna maa ami Fall bayal ba joxe na junni ak ñaar téeméer soxna Faj Diop janatu Firdawsi joxe na junni soxna Maam Faati Jeng Firdawsi joxe na ñetti junni soxna Soodo Diop Forage joxe na ñaari junni ak ñeenti téeméer soxna Ummi Njaay Daaru Minan joxe na juróomi téeméer soxna Binta Saar Baylaat joxe na douze di ñeent ñaari ñaari junni ak ñeenti téeméer soxna Ndey Fall Daaru Minam joxe na 40 mille di juróom-ñetti junni soxna Tayratu Jaxate Sam Jaxate joxe na 6 mille 750 67 mille 500 fukki junni fukki junnee ñett fukki junnee ñett ak ñeent ak juróomi téeméer juróomi téeméer 67 mille 500 waaw soxna Nogoy Diop Riyad joxe na ñeenti junni ak ñaar téeméer soxna Ñaaña Fay Riyad joxe na ñaari junni ak ñaar téeméer soxna Aram Dieng Njigal joxe na junni ak ñeenti téeméer soxna Mbeen Xumma Kornil Sëriñ Seex joxe na ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer soxna Umul Silla Gédé joxe na juróom-ñeenti junni soxna Fatimata Dia Kornis joxe na 36 825 juróom-ñaari junni ak juróom-ñaari junni ak ñetti téeméer ak vingt-cinq ak juróomi dërëm soxna Maguette Gueye ak soxna Oumy jéemul joxe na ñeenti junni soxna Mati Silla Baxdaat joxe na 63 250 fukki junni ak ñaar ak juróom benn téeméer ak juróom fukk soxna Faat Jabaay Asalem joxe na ñetti junni soxna Marème Diagne foraasu Baylaat joxe na 17 250 ñetti junni ak ñeent téeméer ak juróom fukk soxna Ami Samb Tamba joxe soxna Ami Samb Tamba joxe na juróomi junni soxna Mami Ngóone Samb joxe na ñetti junni ak ñaar téeméer soxna Maram Diagne Xayra joxe na juróom-ñaari junni soxna nday mbuub bayaal ba joxe na juróomi junni so bàyyi xaali mbuub bàyyi daara yi joxe na juróom juróom benn junni ak juróom ñetti téeméer soxna ummi géey joxe na ñetti junni soxna baali sekk fooraatu bay raxab joxe na junni ak ñeenti téeméer soxna joor siise ak soxna aji faal fooraatu bay laat joxe na juróom-ñaari junni soxna ummi si daaray sëriñ maxtaar si joxe na 17500 ñetti junni ak juróomi téeméer ali soxna nday njaay bayal ba joxe na junni ak ñeenti téeméer soxna faati gay baay faal joxe na junni soxna busa jaxate tigay baay faal joxe na junni soxna busa jaxate joxe na junni ak juróom benn téeméer soxna Xadi Faal janatu joxe na ñaari junni hmm? soxna Ndey ba yàlla joxe na douze mille di ñaari junni ak ñeenti téeméer lépp lépp bi ñu ko boolee ci li fi ndey daara yi andi toll na ci téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom ñaar ak téeméer ak juróom fukk téeméer ak juróom ñaar fukk muy 785 850 mooy li nga xamante ne moo fi daje ci weesuma yi ñu ngi baalu ñëpp ak di leen baal ak. ci liggéey bi amate na solo di ñaan suñu borom rek mu nangul leen ko te ful ko te laqal leen ko fu yàq yëgut fàttali ñëpp rek bisu social bi kon fukki fa ak ñeent benn fukki fan ak benn la ci weeru janvier bi ñu jëm muy le 11 janvier incha allahu taala na ko ñëpp bàyyi xel bu baax a baax di nuyu sant bokk yëpp rek. Euh, di jot li cant bu mel ne soxna Ndeye Maguette Diop ci hôpital jéemul bi nga xam ne moo jiitee euh, lu bari ci faj mi ci dëkk bi taxawaayam bu am solo lool moo boroom këram ak mbooleem ñi nga xam ne personnel bi mu àndal ci liggéey bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu ñaan moom fay leen seen coono kon mbokk yi jërë ngeen jëf soxna yi leen di jaajëfal bu baax a baax gis nañ liggéey bi euh, pasteef bi ngeen ci àndal ak ak yitte ñi ngeen ci àndal kon nag kenn ku nekk itam koo xam ne amagoo woon ay ay ay kol dañ ko bàyyi xel bi sociale bi na ñëpp sol lu weex tal ànd ak kol yi ak kokol yi amul xidmat yi loolu ñu ngi koy sàkku ci mbooloo la waaw koy jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal